dal leen ak jàmm waaye am nañu mer lool ba dal ci kërub njiitu réew mi Macky ca ndulumaaji tal ko jéppét génne kaabi di turbine ca tournéem gilee foofe ca Matam am nañu bari ñu fay ñaxtu waaye mbir ya fas naa teeri ji ca këru njiitu réew mi Macky Sall foofe ca ndulumaaji dañ ko fa taal na njiitu réew mi Macky tegul tànkam ca dëkku cosaanam di ndulumaaji Walf Quotidien te moo ne de ca Matam googule fala diggée ne chef de village yi am payoor gu toll ci fukki junni weer wu jot génne kaab li ñu woon ci projet Abdoulaye Wade 2012 joxoon na fi payoor chef de village yi yokku ca jox leen woto waaye taxul mu faluwaat taxul mu amaat troisième mandat Walf Quotidien lañ ca gis bokk na ci njiitu réew mi Macky bu mu faloo ci saa si la jël dogal nangu woto ya ci yooyu le chef de village ñu ne déetawaay mu xañ leen seen payoor yéene cabinet tey ñu ngi ci wàccaay élection présidentielle 2024 njiitu réew mi Macky Sall la mu bañoon moom la nangu yi yéene cabinet réew mi Quotidien tournée économique ga muy amal ca Matam musiba am na fa ndax ca la baara dolli ak mbay peex defee accident yoonu Matam jàpp ngi ji loon ñaar ñi leen ñu jëlee ci ay gaañu-gaañu yu metti Walf Quotidien ne nguur gi bu doon nelaw yeewul naaj ña askan waa ngay ñaxtu yéene cabinet réew mi tey bu doonoon ab cin ñu ne fépp lay baxee ñaxtu yaa ngi bawoo fu ne université yaa ngi dëkkee di yëngu-yëngal yéene cabinet tey am nañu dar njiitu réew ku mel ni Cheikh Omar Anne lenn dong moo ko yitteel bokk na ci njiitu réew mi Macky Sall daganaat baatu askan wi ci élection présidentielle 2024 yéene cabinet 24 heures ne te moo ne de jor sawar ci ndakaaru ndax jafe-jafe yi université yi di dund doore ko ci université Cheikh Anta Diop ndakaaru ba ci université professeur Iba Der Thiam ba ne ca Thiès ak université bu Saloum yéen a ca Fatick étudiant ya yëngu-yëngal nañ fa yéen a cabinet critique ne njiital usman Ousmane Sonko ay yëngu-yëngoom wàññeeku na la ko waral mooy moomatul boppam mu ngi ci contrôle judiciaire critique ne njiital Pastef caabi féetewu ko ginnaaw waaye moom munatul dox soxlaam na mu waree munatul tukki yenn yi munatu ko maanaam bile contrôle judiciaire salfaañe na ak ak yelleefu njiital Pastef moom Ousmane Sonko yéenekaay bi di las ne Bruno D'Erneville bokk ci coalition jot na dankafu na njiitu mi Macky ne bu yaboo mu waajal ay bagage xam ne gën ngaa yàgg war naa able ci boppu réew mi Bruno D'Erneville xam le ne njiitu réew bu mu def ci xelam mukk ne mun naa daganaat batu wi lala war mooy ci jamono ji nga tàggu say mbokk tàggu say jegeñaale tàggu say militant balaa muy naaj balaa muy naaj maanaam balaa bu ñu sukkandikoo ci Bruno D'Erneville ci Pastef ci Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu jiite mairie bu Ndakaaru ci élection locale yi ñu jëm Las Badiane di responsable APR ca Grand Yoff daal leeral ne na lebu yi xam ne Dakar du seen moomeel ne waruñoo fab élection bugg koo teg ci waasoo Las Badiane ne kenn ku ne ci askan wi war ngaa mun a jiite mairie bu Dakar yéene kaa bi di Direct News ne décret ba njiitu réew Macky yàggut jëm ci Daniel Filawe ne ca Géejawaay def ko dëkkuwaay yéene kaa ne Forum filao ca géejawaay yéenekaay bi di libération ne ci yooyu le filao fa ñu fekk yàggut néew Jeynaba Traoré faatoo ci anam yu doy waar yéenekaay bi ne la tukkeegum ci enquête ba bokk na ci ñaar ñañ ca teewoon njortoon ne xëy na seen loxo laale na ca yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñooñu le mañ lañ leen afiya waaye lii di téléphone ndem si yàlla Jeynaba Traoré jot naa feeñ yàggut ci ab restaurant gu ne ca corniche bi li jaaxal libération bokk na ci lu ko benn bal ci dara gene cabinet na France ak Portugal doore neexagum na laaj daal di sampu ndax Italie du njëkk a qualifié huitième de finale yi Ndayaan Imo distribution ak gaamam bi di warga Ndayaan ceebu Ndayaan boisson Ndayaan ak seen agence Techno Habitat mi leen di sàmmal seeni bien immobilier ñoo leen doon may li ci yenn kaay yi jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci lañ yëkkatee jotaayu xibaar yi di sant di gërëm bu baax a baax Adama Ndiaye mi fare woon ci xarale gi eh, ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ñu leen di ñaanal mucc gu sax ànd ak yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal ñu yendoog jàmm li ñuy defar mu jaar kàddu gi delloo war ko soxna bisu ci am su ko defee mooy bi di douceur bi nationale internationale